mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci jëmmam mbokk internet yi ñu ngi leen di ziar di leen wàcc seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen nuyu nuyu bi gën a màgg ci nuyu islaam yëpp muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di nuyu sunu sëriñ suñu xalifa cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass xaadim xaadi xaadimul ummati di ko ndokkeel ci ndamam lu rëy moomu nga xam ne moom la amoon ci sudaa union européen union africain yëpp def ci ay yitte mais yàlla dogal antowut ci ñoom mu anto ci loxo kan xalifa Cheikh Ibrahim muy Cheikh Mouhamadul Mahi kon ñu ngi koy ndokkeel ci lool di ñaan yàlla yokk ay fanam te mu ànd ak wér bi jaay rasulullah salaay di nuyu waa site bi site Tawfekh euh, Tawfekh euh, production di leen ndokkeel ñoom it euh, di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay ci dalal gi ñu dalal ci ñu waxtaan ci Cheikh Ibrahim ñi ngi waxtaan ci góor gooy xam ne dëgg-dëgg ku jafe waxtaan la ñi ngi waxtaan ci góor gooy xam ne ñun ñoo gën a néew li ñuy wax ci njabootam waaye itam dëgg-dëgg foog ñu wax ci moom ndax ñun moom rek lañu bëgg bàyyi nga xam ne mi ngi juddu 1900 fële sa Taïba Niassène dëkkam boobu nga xam ne macha allah yàlla selal na ko mbooloom sell yi ci barke Cheikh Ibrahim Baay ma ngi fay wax ni waxtama fatxi inda mahdi wa qarqanat jamiu rijalil xaybi bi taxtaxadaay fama xattamu fi sharhi wal garbi fatfadan ila makkata ila li sammi wa liim laa wa xayni yow ma xaynu muhammadin shara shirruhu fi xëykali waruwaay Baay mu ne ba mu ne cëpp ci berso yaayam calaam fatxu mbooloom góoru xay bu yépp di ñëw di rëj rëjloo ngir màggal juddoom bi mu ne mbooloom nag ku dem màkk mbooloom góor yàlla bu dem màkk di ziyaar yonent bi saay salaam dañ fa dem rek ngir di xencu xetam bi moom Cheikh Ibrahim moo tax mu ne wax wa kullu minhu kullu batnan wa zahiran fa baxru siwaahu maalanaa fi masrab mu ne lépp ci yonent bi saay salaam la jóge ci lu njëkk waaye tamit ak ci lu mujj mbooloom tawféex yépp mu ngi jóge ci yonent bi saay salaam kon dëgg-dëgg Baay mi ngi wax ni yonent bi mooy lépp waaye ci lépp tam ci moom la bàyyeekoo kon nañ sant yàlla ñun bi ñu yàlla booleeg Cheikh Ibrahim ndax Baye da ngay dégg ne waxam yëpp mooy nu muy def moom ba ràññeeloo kan mooy yonent bi saay salaam ndax tey jii ñun fi ñu sante yàlla ñun yamuñu rekk ci Mouhamed ibnu Abdullah waaye xaqatu Muhammadiya dëgg-dëgg Cheikh Ibrahim moo ñu ko xamal moo tax moom Baye mu ne fëxal ak sarak ay naaka misliya saa ira suluki wa jazbi wal xulumu fuyuudu ndax yow sa ñaari bët yi mës na gis ku mel ni man ci ni may jës waaye tamit dëgg-dëgg ak ci ni may àggalee moom bàyyi moo tax dëgg-dëgg mu ne wal ummatu xasdi fihim wa nasxuhum ila qadratil bari rahimi naa man de sama jubluwaay ci yéen umma islamique bi yépp mooy màng leen yóbbu leen ci xadar yàlla bi nga xam ne mooy baxru mooy rahim Baay mënoon na wax mu yéen samay taalibe yi mënoon na wax yéen samay soppe yi waaye dëgg-dëgg xadara yàlla boobu mbooloom ku nam mu dem fa rek ñëwal ci Cheikh Ibrahim boo ñëwee Cheikh Ibrahim jox nga ko loxo te boo joxee loxo Cheikh Ibrahim jox nga ko yonent bi saay te boo ko joxee loxo jox nga ko Cheikh Ahmadou Tidiane yi moo tax bàyyi dëgg-dëgg foofu mu ngi naan yaaman yuridu Tidiane yi xay mu saafaxatan fi bayti par xaama tur fi xaama kaafaxatan yow mi bëgg Cheikh Tidiane bëgg ko jox loxo mu ne ñëwal néeg bàyyi boo ñëwee néeg bàyyi boo saafanteeg dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima saafante ak euh, Cheikh Tidiane boo saafanteeg moom boo ko joxee loxo jox nga ko Cheikh Tidiane moo tax dëgg-dëgg yàlla na yàlla fayal ñu bàyyi yàlla na yàlla fayal ñu ko barki yonent bi saay salaam yàlla fayal ñu ko barki Cheikh Ahmedou Tidiane yi ndax àdduna bi yëpp taxaw nañ naan c'est bàyyi la solution bàyyi ne xaw jaddani xaqan li jabru kasri fa inna ni wakkeenu sirri sirri man la yàlla amal ngir ma jàng mbooti mboot yi mbooti mboot yooyu noonu dëgg-dëgg damm-damm boobu bokk na si jaam bu war a àgg ci yàlla te mënta àgg ci yàlla bokk na si jaam bi nga xam ne dundam yépp yàlla la ci war a soxla te jubluwut yàlla te jamono bi ñun liñ def problème du du jublu yàlla waaye jublu lu dul yàlla lañ def problème te dëgg-dëgg nag ah ñun xam leneen lu dul yàlla moo ñu jaaxal waaye xam yàlla ñun waruñoo jaaxal gis leneen lu dul yàlla mën nañu jaaxal waaye dëgg-dëgg gis yàlla waruñu jaaxal kon guddi ñu toll nii ndaw yi nañu bàyyi seen yitte yëpp bàyyi seen programme yëpp te jël lépp jox ko yàlla loolu laa ne dama koy lancé ndaw yi rawatina nag ndaw Cheikh Ibrahim yi nga xam ne bàyyi lii la indi bàyyi lim indi mooy jël ñu jokkale nag sunu borom kon nekk ci internet yi naan ay Sénégal day dóor nangam ak diw day dugal biiw ak mbër mee day daan ak kii day def lii Cheikh Ibrahim loolu du mission Cheikh Ibrahima mission am mooy jommat ñu yóbbu ñu ci xadara yàlla bi Cheikh Ibrahima luy mission am mooy dëgg-dëgg euh, won ñu dëgg-dëgg kan mooy yonent bi salaay salaam Cheikh Tidiane luy Cheikh Ibrahima luy mission am mooy dëgg-dëgg won ñu kan mooy Cheikh Ahmadou Tidiane yi lii nag bés bu ko ndaw yi xamee danañ xam ne dëgg-dëgg bàyyi mission mooy wane mbëggeelam ci yonent bi salaay salaam mission mooy xamal jaam yi yàlla mi nga xam ne moo leen lëntoon ndax góor yàlla yi fañ jamoon ñëpp xam nañ ko dara nekk fi du dul yàlla taalibe baay bu nekk dëgg-dëgg xam na ne taalibe bàyyi bu nekk rek foofu la tàmbalee te foofu la góor yàlla yi jeexalee moo tax bàyyi ne fi góor yàlla yi jeexalee sama taalibe yi ñoom foofu lañu tàmbalee kon kii ñun dara warlu ñoom ñoom moom Cheikh Ibrahima lu dul di ko di ko liggéeyal di ko bëgg di wax ci moom daa iman wax di wax ci mbiru àddina yi ñun jëriñuñ dara mun nañ am àddina dëgg-dëgg te buñ demee yoon xiyaam dajeeg bàyyi dañ naan yéen lan laa leen santoon te ya bu ñuy dajeeg Cheikh Ibrahim yàlla nañ dajeeg moom di siggi bu ñuy dajeeg Cheikh Ibrahim yàlla nañ dajeeg moom bokk ci taalibe yi nga xam ne da koy puukaréew bu ñuy dajeeg Cheikh Ibrahim yàlla nañ dajeeg moom mu ñuy taxaw ci zahir ak ci baatin ndax Cheikh Ibrahim dem na bay wax euh, ci diggante yonent bi saay salaam ak doomam Faatumata Zahra ndax yonent bi saay salaam nee na doomam lépp loo ma laaj ci àddina yow Fatimata Zahra danaa la ko jox waaye bés bu ñu demee yomal xiyaam jaamuwoo yàlla bañ dem fa nga naan yonent bi mooy sama baay bàyyi ne dëgg-dëgg yonent bi saay salaam wax na fi yaa faatimata mu ne ko kon foofu du la fa jëriñ dara kon loolu li muy tettale bàyyi ne comme yonent bu tedd boobu mooy wax loolu doomam maa sama ak man Cheikh Ibrahim te wallaahi ñes dafa baax rek waaye dëgg-dëgg fépp fu mu demut wala fépp fum jubluwul ñun bëgguñu fa wala jubluwuñ ko te yàlla buñ fa yàlla yóbbu ndax ñun bàyyi rek lañ bëgg bàyyi rek lañ fonk bàyyi rek lañu wóolu te bàyyi rek la ñuy dund te buñ ko waxee nag loolu kenn ku nekk rek mën na ko déggee neneen mais ñun loolu lañ dund loolu lañ bëgg te ci loolu lañu nekk waaye wax na fa inni rahmaniyatullahi inna man yuhibbu wa naaru li di mu jaddali waaye mu ne man yërmande yàlla laa ñeel mbooloom ku ma bëgg waaye dëgg-dëgg safara laa ñeel mbooloom ku ma bañ bañ baay nag dëgg-dëgg amul ndax baay kenn mënu ko bañ moom ci boppam nee na wallaahi mbooloom ñi ne dañ ma bañ suñ ma xamoon man Cheikh Ibrahim duñ ma bañ bañ baay bokk na ci yàlla def la nga nekk tànneefu Cheikh Ibrahim ndax taalibe baay nekk na looy xam ne nekkul ku nekk ko sopp yàlla moo lay bëgg namm nga nekk taalibe baay nga nekk ko bu la yàlla defee nga nekk taalibe baay lenn moo la war yow mooy nga liggéeyal Cheikh Ibrahim liggéey gi nga koy liggéeyal mooy tax yow nga bokk dëgg-dëgg ci ñi nga xam ne bàyyi nee na man yërmande yàlla ñeel mbooloom ku ma bëgg waaye bu fekkee ne liggéeyaloo ko nekk ci looy xam ne dañ ko ci nangam nangam nangam yow bu boobaa kat dëgg-dëgg yow da bokk ci koy xam ne bàyyi dafay nekk safara ñeel la ndax Cheikh Ibrahim sunu sëriñ mbooloom fu kilifa yépp di rawante yàlla dogal na jiitu nag te bàyyi waxam boobu sax mi ngi naan uduriku man mada wa afuutu man baqa wa inta saabaqa rijaalu asbaqa mu ne man ñi ma jiitu man Cheikh Ibrahim dox naa ba raw leen ñeneen ñi ci topp man raw naa leen man Cheikh Ibrahim mu ne ñi nga xam ne ñëwaguñu nag sama pënd sax séentooguñ ko kon dëgg-dëgg kooku bu la yàlla jaglelee nga bokk ci ay taalibeem xam ne yow sa sëriñ bu fekkee dëgg-dëgg ñaan na yàlla alxuraan nekk karaamam te nekk na karaamaam ndax dëkkam googu dëgg-dëgg alquran rek lañ fay jàngale mbooloom taalibe mi dëgg-dëgg ne def nañ yitte ci alquran ba yàlla jiital leen ci kon yow lenn moo la war mooy liggéeyal sëriñ bi mais paa ngay def la xam ne dañ la ciy xeeb ndax bàyyi mbooloom ku koy liggéeyal bëgg na la ba bëgg sax ñoo xam ne liggéeyaluñ ko ndax nee na ba man yu xit bu nii wa man yaraani fil jannati xuldi bila bustaani is ni xalifatul tijaani mawhibatan min ahmad atanaani mbooloom ku ma bëgg man Cheikh Ibrahim ah mu ne amul sikk ni man ak yow ñooy dëkk àjjana mu ne eh, lu tax loolu man maay xalifa Cheikh Ahmadu Tijaani te loolu amul sikk ni Cheikh Ibrahim mooy xalifa Cheikh Ahmadu Tijaani kon ñu ngi ndokkeel mbokk yépp di ndokkeel waa Tawfekh Production